site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko transitaire madame Mbacké arrière billaay yaa gore yaa bëgg président ànd bi rafet na sàmm na kolore wuyoo sàll ngaare tamit di liggéey liggéey boo xamante ni tubaarkàlla liggéey bu am solo la muy kan Biram Mbaru nekk koo xamante jàmbaar la waaye tamit am taxawaay tey moo ngi nii nekk tamit ci fan monument de la renaissance doon koo xamante ni tubarkàlla moo ngi liggéeyal le président Macky sàll biram tey sa teewaay ci bés bi noo ko gisee ak li nga xamante ni noonu nga ñëwee nga am taxawaay ci département bi noo ko gisee. waa merci beaucoup tey dañoo am mbégte bu rëy ñëw fii taxaw ci Fatick pour ànd suñu mbokk waa Fatick yi sargal la président Macky Sall sargal un homme multidimensionnel. un homme boo xamante ne def la lu ne ci biir Sénégal donc suñu wootee tey pour sargal ko damaa jàpp ne Fatick kenn warul des te effectivement kenn desul toute la population de Fatick est sortie pour ñu fii sargal ko euh, woon ko ne liggéey bi nga liggéey ci Sénégal rafetlu nañ ko te kontaan nañ ci mais aussi ma gis fan yi nga lancé benn mouvement boo xamante ni mouvement bu am solo la ci département bi mouvement boobu lan moo ko dox a jóg mouvement boobu waaw effectivement lancé nañ benn mouvement mouvement bu nekk ci biir euh, APR nekk ci grande mouvance présidentielle muy le mouvement ADN naataange euh, lancé nañ ko fale ca commune do nga yoxeem muy un mouvement boo xamante ne dafa jóg ngir gën a dëgëral taxawaayu APR taxawaayu taxawaayu Benno Bokk Yaakaar taxawaayu grande mouvance présidentielle ci biir département Fatick ci biir commune do nga yoxeem loolu mooy li tax ñu lancé ko ñu ànd ak euh, une très grande partie de la population do nga yoxeem a wone gën a fësal gën a taxaw liggéeyu parti bi gën a fësal liggéeyu président Macky Sall aussi ci biir réew mi ci biir Sénégal yëpp. merci beaucoup. ki xewle bés bi di jigéenam madame Thérèse Faye Diouf moom tamit mu am ci taxawaay boo xamante ne taxawaay bu am solo la kenn du ko netable daab ñu ngi lay bu baax a baax noo gisee bés bi. ñoo ngi leen di fay sant yàlla bés bi moom leer na vraiment montré na ne Fatick yëpp jóg nañ unis autour de l' essentiel essentiel bi nag mooy gunge Amadou Ba ba mu àgg. fi nga xamne mom lañ bëgg foofu la président de la république bëgg lool dal mo ñu yëkëti té vraiment li woné na né dal fatiga ngi dox pour nek ben té dinañ ko nek inshallah ba Amadou Ba lim ci bëgg dina ka am. doon ko xamanteni ci kii kenn dootu ko présenter ci parti bi waaye kenn dootu ko présenter ci Sénégal ndax jaar-jaaram ak li nga xamanteni dem na ko ci réew bi muy kan ah suñu doyen mbagn ndjay doyen monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax no gisee bëss bi tay waaw maa ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax. yéen waa sinti TV. tey président wax ne Amadou Ba lañu jiital yéen ñëpp ngeen bokk ndey bokk baay tey Thérèse Faye woote bés bii ci digg Fatick mu doon bés boo xamante ne tubaarkàlla gis ngeen mbooloo mi nu mu mel sa taxawaay ak sa gis-gis lan la woon monsieur le waa waaw rafetlu rek euh, tànn bi président tànn euh, suñu collègue suñu xarit suñu am di jàmm euh, Amadou Ba. nga xam ne bi mu koy laata tànn dafa am benn processus maanaam mu oo ñëpp waxtaan ak ñëpp waxtaan ak waa APR waxtaan ak waa benn Bokk Yaakaar ah ñi nar a nekk candidat mu ne leen ñan ñooy ne candidat ñu tànn ñu tànnee discuter Amadou génn président ne comme amadoo génn moom lay supporter donc ñun ñi nga xamné ne ni ño nek APR fondateur APR mënuñu lu dul Amadou surtout principalement fi ci Sine nga xamné ne président fi la fi la juddo fi la maggé fi la ko Yalla maye teranga ju nek ba jox ko teranga président de la république donc ñun wa Sine dañoo war a juboo nekk benn li nga xam ne lii moom la doomi siin ne ñu def lii ñu dem koo def mais buñ ko deful kii jaar fii kii jaar fii kii jaar fii xiiroo beeg ñaayoo bi war nañ ko mun a euh, bàyyi. merci beaucoup monsieur le ministre muy kan kenn dootu ko présenté moom it Berthe Faye doon koo xamante nii tey dafa ñëw teew sa teewaay tey ci bës bii nga xamante nii jigéen ñi ñoom ñoo génn.

rawatina fi ci fatik tay nak nek bëss bu spécial ci bir bëss yi ndax kenn ci ñun muy suñu euh, sœur di suñu xarit di responsable politique bo xamné dafa authentique auprès du président de la République muy madame Thérèse Faye Diouf ñu nommé comme ministre nak du développement communautaire bi nga xamné am ministre bu jigéen fi ci région de Fatik. Euh, ñu di ko rafetlu bu baax a baax mom, baax mom. ak moom nag moom ngir sargal son excellence le président Macky Sall waaye ñun jigen ñu ñu àndandoo itam di la en même temps madame Thérèse Faye Diouf mi nga xam tay mo fi nekk le bouclier des femmes jita jigenu département bi rawati na yu région yi waye dama naan yu Sénégal yëpp kon nak lu def tay lu rafet lu bëss bi di ñaan suñu borom nii ñu ko sumbee nii ñu yeggalee ko ak suñu sago ci jàmm ak salaam di félicité ñu ñom tamit ñu am taxaway tay ñuy sargal son excellence le président Macky Sall ak kan ki nga xamante ne kii mooy madame le ministre Thérèse Faye Diouf ah ajaratu noo gisee tey bés bi. toogee tey jii suñu càmmeñ suñu xarit liggéey fi liggéey bu rëy bi mu fi liggéey ci Sénégal àddina yëpp teg ci bët dañuy sant yàlla ñu dolliwaat jël suñu madame la ministre bi tey di Thérèse Faye Diouf jàpp ko dem Toubacouta ne président Macky sàll kii lañ bugg nga téyel ñu ko. mu jël ko joxal ñu ko fonds yi tey mu del ko falalaat ñu ko ministre dañ koy sant di ko gërëm président Macky Sall nag kuy wax ay mbiram fi nga ñuy fanaan parce que moom boolewul daray wax jëf rek lay liggéey dañ koy ñaanal yàlla yaakaar bu mu am si amadu Ba muy teg ko yàlla bu yaakaar tas yal nañu yàlla jàppale ba ñu teg Amadou Ba fi mu ñu teg ko fa bu jour ba incha allahu rabi di gërëm tam ndokkale madame la ministre Ndeye Thérèse Faye Diouf

Euh, ñun ñëpp la ko defal donc jàpp naa ne euh, tey lii ñu def aussi du lu ñu bett ndax depuis ñu nekk étudiant la ñuy dajaleel président mbooloo lañ koy liggéeyal ba yàlla def tey ñu doon kilifa yi ñu nekk donc bés bu ñu jarg sargalee président Macky Sall doomu Fatick bu ko utee rek da nga ñàkk jot wala say yaram bañ la ko mën a may mais amuñu ku dul président lépp lu ñu am ci dëkk bi wala tey buñ fiy dudd gannaaw yàlla ak yonent bi président moo tax. donc tey bu ko Thérèse ak ay jigéenu Fatick jaglelee bés bi lépp lu ñu jàppoon dañu koy bàyyi ñëw teew gunge leen ci mais félicité leen parce que lii ku ko gis xam ne liggéey bu yàgg moo mun a tax nga dajale nit ñi te. jërëjëf Daz dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ni tubaarkàlla yëkkati na ko nga jëlal ma koo xamante ne kii kooku tamit kenn la ci man. nek borom nouvel élan nek ci département bi di def liguey bo xamante ni machallah liguey bu am solo la muy kan kenn dootu ko présenter borom nouvel élan mo ngi ni Aliou fay mbin tok tay sa jigen xewle di sargal son excellence le président mack Sall ngeen joge ci département bi ñew tay no gisee bëss bi buur dama lay nuyu di la jaajeufal di jaajeufal sin TV gis nañ liguey bu rafet bi ngeen di def li nga wax nonu la dama fi ñëw euh, ci yoon yu bari yaa ko wax ne nga sa jigéen moo xewle sama jigéen la parce que Thérèse fay Faye la sant Aliou fay fay laa sant donc ñu bokk fay bi muy sama sœur euh, donc bu xewlee dama war a ñëw bokk kook moom jàpp ci ba ñëpp gis ne takk naa ci rëb beneen bi ñu boole mooy Benno Bokk Yaakaar mooy Macky sàll mooy Amadou Ba boo ko fàttalikoo samedi passé rek ca Ngayoxeem laa doon def meeting tey jii mu xewle ma ñëw bokk kook moom ci suba ba léegi maa ngi fii donc lii moo wane ne Fatick yëpp benn bopp lañ Fatick yëpp benn lañ Fatick yëpp ñu ngi ginnaaw Macky Sall Fatick yëpp ñu ngi ginnaaw Amadou Ba pour élire ko au premier tour en février 2024. soxna ñuy sargal tey son excellence le président Macky Sall. ku nekk gis sa taxawaay ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy liggéey ci wàllu jigéen ñi tey ci biir commune bi ak ci département bi. tey noo gisee bés bi soxla fa. waaw Malaw oh, oh, bu ma nuyoo ñëpp maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi salallaahu alayhi wa salaam di wax ne bi bés bi daal mbégte rek lañ ci am am nañ ci mbégte am na fu mu commencé mais amul fu mu yem. di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamina ndax Macky Sall moom deseelatul jigéenu Fatick dara deseelatul jigéenu Fatick dara moom moo ñu sagal Macky Sall moo ñu sagal mu ci financement yi mu ngi ci développement féminin yi mu ngi ci groupement yi mu ngi si dimbale si waa Fatick si lépp kon ñun amuñu lu dul sant ko gërëm ko ndax Fatick ku xam Fatick démb xam Fatick tey xam ne Fatick am na avancement te grâce à son excellence Macky Sall la mais tamit lu ñu gën a neex aussi dafa jël suñu frère suñu xarit jàmbaar jooju nga xamante ne daa bañ ba waa Fatick monsieur emploi lañ koy woowee def ko ministre de l'artisanat loolu itam ñoo ngi ko ciy jaajëfal bu baax di ko ci sant di ko ci gërëm di ko wane suñu xol sedd na guy ci moom ñu ñoo moom tey suba ba ëllëg Amadou Ba mii mu ñu si tegal moom la ñuy topp ànd ak suñu ministre Birame Faye ànd ak moom yàlla may ko ndam Sénégal jëm kanam Fatick jëm kanam aussi di sant di gërëm ministre de la euh, ministre Thérèse Faye Diouf vraiment bés bi am na solo taaru na. jigéenu Fatick yëpp la ko defal waa Fatick yëpp la ko defal commune Fatick bi yëpp la ko defal ñoo ngi sant di gërëm. merci beaucoup waaye di si yéen rek di rafetlu seen liggéey comme d'habitude rek foo leen dem da ngeen di assurer mention spéciale à Sine bi ñu ngi féliciter waa Fatick yëpp ndax mobilisation bu rafet bi waaye di jiital ki yor ki am initiative bi muy euh, ministre Thérèse Faye Diouf. waaye nag président Macky Sall bu ñu ko njukkalee fii ci Fatick war na ba mu jëlee doomu Fatick muy Thérèse Faye ak Birame Faye bi nga xam ne mooy ministre de l'artisanat di monsieur emploi di def liggéey bu rafet ci Fatick bu ko jëlee def ko ministre kon dañ ciy gën a kontaan kon nag sargal bi tey war na ñu ngi lay gën a asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp seen tur seen sant di kontaan su baax si déplacement bi nga def ñëw fii si Fatick di remercier bu baax président Macky ko wax ne ama moo ñu ñoo ko yoroon njukkal fu mu nekk nii parce que bu jëlee tol nga xamante ne fal ko loo xamante ne depuis 1960 ba léegi mosuñoo am ministre bu jigéen mu jël Thérèse Faye Diouf wóolu ko teg ko loo xamante ne macha allah boo xool tey jii Sénégal yëpp a ngi fii Fatick région Fatick yëpp ñu ngi fiy toog di ko ñaan yàlla yàlla ñaan bu yooyof yàlla na yéen bu oyof bu baax a baax a baax président Macky Sall ñu ngi koy wax ne ko fii bu neexee yàlla élection yi di ñëw kii mu ñu tànnal muy Amadou Ba ñu ko teg ko suñu kanam bu neexee yàlla nañ ko fal au premier tour di remercier di kontaan ñëpp di tey jii mbooloo mi ñëw Tataguine ñëpp moom moo ko organisé encadré ko yebal ñu fii si Fatick pour ñu président Macky Sall jàppale Thérèse Faye Diouf ñu leen remercier bu baax baax merci beaucoup. waaw jërëjëf euh, maa ngi nuyu téléspectateurs yu Sine TV yëpp euh, suñu teewaay fii euh, da nga jeexal wax bi parce da nga ne ñuy sargal le président de la république le président Macky Sall donc le président Macky Sall am liggéey bu am solo boo xam ne daf ko def ci biir Sénégal daf ko ci biir adduna bi donc su jëlee doomu Fatick.

nous, jàppale ko ci sargal le président Macky Sall non seulement ci lim ñu sagal fait Fatick mais waaye ak li nga xam ne def ci biir Sénégal déclaration bu am doole bi nga le 3 juillet passé devant toute la nation ne du représenté wu donte sax euh, yoon may mu briguer un deuxième quinquennat mais devant tout le monde le président Macky Sall ne du représenté wu ak li nga xam ne euh, bu ma 2012 sax fi nga xamante ne bi mu jëlee euh, pouvoir nekk président de la république waaye ku xam le président Macky Sall bi nga xam ne dama commencé na liggéey dugg fonction publique Le mu liggéey en tant que directeur wala ministre wala président de l' assemblée nationale jar na Sénégal yëpp sargal ko. baax a baax di remercier le maire Badara Ndiaye parce que tey euh, moo ma invité bi ma ñëwee vraiment ma fekk fi vraiment.

Madame Thérèse Diouf, ministre, de remercier l'ensemble des responsables politiques de la région de Fatick. Un site d'information Sine TV nekkee fait de Wano Fatick un leen lu bees Les plus lu jëm ci le sport culture éducation santé ba politique voilà sax information Il est proposé proposer ay vidéo yu est ayib yi nga faire ne top les plus lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii de diwaanu Fatick togal fi région bu Fatick Sénégal Sine TV Joko